li may dénk sama bopp te di ko dénk képp ku nongu ku ko dénk mooy ñu fexee xamaat bu baax euh, liggéeyub Sëñ tubaab bi ak li nga xam ne moom la siñ Tuubaa bëgg ci ñun euh, dafa mel ne nag euh, daa tàmbulee daa tàmbulee raaf ci wet yu baree bari ndax daal dafa mel ne dañoo tàmbulee néewal doole la Sëñ Tuubaa gënoon a fonk tàmbulee it di toroxal ak xas ak a ŋàññi ak wax lu ñaaw ña nga xam ne ñoo ko nekkal ca loola maanaam suñ tubaab bu ñu jàppee ne da doon jihaad mhm, mhm. da doon jihaad mhm. nga xam ne li am lépp ci jihaad la ko am moom lam doon jihaate mooy xam-xam benn murit bu werante ci ne suñ tubaab bind yaa jumlatan moom amut ñëpp d'accord nañ ci ci biir yaa jumlatan nag inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqaa la ca wax man ci xam-xam ak ragal yàlla lay jeexaat xam-xam boobu mu doon jeexaate ak ragal yàlla nag lim na sax fànni xam-xam yi mu doon jihaate alxuraan ca la bokk xaddis ca la bokk tasawuful islaami ca la bokk eh, lim na ko eh, eh, zikrun dafa wax ne amar rimaax yi daa njëkk wax ne sax in kaana lil aadai aslihatun tihi xiifu in kaana lil a aslihatun biha xiifoo fa aslihatu tihi wa ujaahidu daal di wax ne nag zikrun wa madaafi illati biha an fi l sama kënu yi nga xam ne ci laay dàqe sama noonu wa madaafiu llati biha an fi lida wa biha yufaariquni anidun qasidu sikrun xakimun uhkimat ayatuhu mimman yuzahzihu ma yuridul maridu mooy alquran mooy kënu gi bu dee bànqaas fa ashumun qad xuddidat bu dee bu dee fett yi mooy fiq mooy yi espion bi nga xam ne moo koy gëstu jël ay xibaar ndax loolu da daan am ci xare ci lislaam bu ñu naan xare ji dañuy yebal ay yoo xam dañuy gëstu ji ba xam lu xew ama alladi yatajassasu l asraara li fa tasawufun saafin jala amajidu amma rimaaxi fal ahadisu lati bu dee xeej yi mooy hadis yonente bi salallahu alayhi wa sallam moom jumtukaay yooyu la yoroon di ci xeex ci la amee lim am lépp nag te wax na ko ci yeneen barab yu wuute léegi nag bu ñu demee ba jamono toll foo xam ne nag maanaa ku bëgg a tënku ci xam-xam te liggéeyal ci sëriñ bi maanaam ñu ñu ñu ñu luñ xam ci lu ñaaw wax la fu ñu xam ci fu ñaaw dëkkale la loolu day mel ne kon am na leneen lu judd ci biir yoon wi loo xam ne folklore la te loolu xeex Sëñ Tuubaa la gën a nuru jumtukaay bi mu doon xeexe moom ku koy xeex day koy xeex jumtukaay boobu day mel ne yow yaa gën a jege xeex Sëñ Tuubaa li tax ma ma ma ma wax lii nag mooy boo xoolee at mii rek at mii mm-hmm. dangay gis ay kàngam yoo xam ne seen dund gépp dañ koy jeexal ci liggéeyal Sëñ Tuubaa ci xam te dañuy indi benn fatwa ci xam-xam wax wala ci seen position boo xam ne bu suñ Tuubaa teewoon tey ñoom ñu wax loola Sëñ Tuubaa gërëm leen ndax xam na ni ñii ci xam-xam la ñuy dox mm-hmm. te loola mooy doon dëgg nga gis koo xam ne ci dégginam ak bëggam day jàpp leneen lu wuuteeg loolu tax mu attaqué ko mm-hmm. di ko saaga di ko xas di ko ŋàññ def nañ ko ñu bëree bari waaye ñi ñu ko mujjee def rek la mën naa leen a tudd Sëñ Bakka Abdourahmane ci la bokk def na fi benn fatwa boo xam ne lam wax ku xam dara loolay dëgg lu ñaaw lu nekk wax nañ ko ko ci si seexu naa Abdul Wadud barki démb def na benn fatwa boo xam ne ci xam-xam la wax lu ñaaw lu nekk wax nañ ko wax nañ ko ko ci ba accusé ko jàpp ne du murit te yàlla seere na ne ñi ma jot a dégg ñëpp ñu di ko accusé billaahi la si laa ilaha illa ku ko ci ëpp pas-pas sa diggante Sëñ Tuubaa amul te kenn ci ñoom koo xam ne li mu liggéeyal Sëñ Tuubaa ci ci kaw suuf maanaam ci ak dundam liggéeyal nga ko Sëñ Tuubaa amul kenn ci ñoom koo xam ne lim liggéeyal Sëñ Tuubaa mhm. liggéeyal nga ko amul ñi naan du murit ñi di ko saaga ñi di ko wax lu ñaaw te boo xoolee mbooleem ñi attaqué yoonu murit tey bind ci xam-xam di wax loo xam ne au niveau international lay dem ña koy radd di di dajji wax joojee am bind ma ci ëpp ñi nga xam ne dañuy bind loo xam ne fépp ci àdduna bi lay dem di wax ci yoonu murit lu ñaaw ñi di ko gëm mhm. ñay wax lu dajji wax joojee bind ko ñoom it mbindum Seexuna Abdul du ma ci ëpp fii rek bu yàlla dogalee ngay borom xam-xam boo xam ne da ngay jëf te doo wax ñu bari mën nañ laa bañ a xam. bu yàlla dogalee bokkoo ci xëlëf xëlëf ji di dox ci xam-xam ak unité. Mm-hmm. ñu bari mën nañ laa weddi. waaye buñ fab nattukaay di ko natt ci ñii fi nekk bu ma ñii fi nekk ci laa keneen ci la nañu fab nattukaay di ko natt ci Sëñ Tuubaa ak lim bind. Mm-hmm. boo xoolee diggam ak Sëñ ak digganteem li Sëñ Tuubaa bi na xam ne amurit la waaye boo da ngay jàpp ne du murit fekk loolu mooy problème bi ñu bare bari nag ñu koy attaqué te dañoo considéré seen bopp Sëñ Tuubaa te duñ Sëñ Tuubaa jegewuñ ko sax nag Seexuna nag yàlla yee na ko moom mbokkum Sëñ Tuubaa la jàng na te du gone te défendre na Sëñ Tuubaa fu ne ci àdduna bi te ba fii may wax ak yow attaques yi ñu koy attaqué yàqut ci pas-pasam digg mag Sëñ Tuubaa lu toll ne dee deewee boo liggéey buñ ko liggéeyloo mu liggéey buñ ko def loo mu def waaye lépp ci xam-xam la koy def ñooñu nag buñ demee ba di leen màbb di leen daj di favoriser ay gone yu ndaw yoo xam ne ciy caaxaan képp lañ nekk ñu di leen saaga lu ne ñu di leen ko wax lu ne ñu di leen ko def loolu te Sëñ Tuubaa moom ci xam-xam la ñu xeex yow nga ñëw di xeex kii kii jàppale Sëñ Tuubaa kon yow yaa gën a jege xeex Sëñ yow loolu moom bu ma amee message bu may lancé moom mooy maanaam njuddu mu yees mii daal nga xam ne xeex xam-xam ak ñooñ xam-xam mooy seen yitte mm-hmm. loolu moom nañ xam ne ñoom si xeex Sëñ Tuubaa lañ gën a jege mbir yi moom du yëg-yëg boo xam ne noo ko yëgee rek noonu la déedéet. Hmm. diine diine du noonu liggéey Sëñ Tuubaa bi du noonu du ni ko yëgee rek. Hmm. ginnaaw lu Sëñ Tuubaa rëdd la. Hmm. téere yaa ngi fi mag ñi mu yaroon a ngi fi. léegi mbir mi dañ koy atte ca nam doon jàngalee ak nam doon yare mag ñi yow nag sa yëg-yëgu bopp sa yëg bopp la kenn contre ko waaye bul force di ñi ci la ñuy dox. loolu moom mënta nekk moom. loolu daal mooy message bi nga xam ne maa ngi koy dénk sama bopp képp ku bëgg maa la koy dénk